fan ak juróom-ñeent ci weerum février atum 2019 dalee nag jàmm ci xibaar yi ñeel campagne électorale bi li ci gën a nag bokk na ci suqali Sénégal ci dirum fukki at loolu mooy bëgg-bëggu Ousmane Sonko présidentielle président Macky nag daal ne dalal xelu askan wi moom jàpp na ni rek premier tour dina ko gagné te amul kenn koo xam ne mën ngaa tere lu ni mel li jëm ci fitna ci campagne électorale bi kuréel yi nga xam ne moo ëmb tijaan yu Sénégal yi tey nag daal nañuy artu ñi ne ñooy candidat yi étudiants Aminata Diop ñoom nag bëgg nañoo xam programme candidat yi waaye itam ñu ngi leen di woo ci li jëm ci ay fitna amoon na it fitna gu am foofu ci avenue Blaise Diagne ñi féete ak sa Seck ñoom nag ñoo daal di jàmmaarloo ak ay responsable yu benn bokk yaakaar ñu daal di ñëw ak yéen ci yaatal gi ni ma leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi Idrissa Seck njiital Idy 2019 moom nag mi ngi woon foofu ca Daaru Muxti moroomu takku daal di ko fay teeru muy rafet lu lu mel waaye it wax na li nga xam ne moom la bëgg indi ay changement ci biir Sénégal. gis nañu seen gis nañu seen li ma gis fii gis ko Touba li muy firi mooy boo bëggee juboo ak nit da ngay jubóog borom xol yi. maa nuyu bu baax a baax a baax Serigne Abbas xalifa bi. di nuyu njabootu maam Thierno yëpp. di nuyu mbokku taalibe yi nekk fii yëpp. di leen gërëm ci seen mobilisation. mi ngi woon foofu ca podoor Ousmane Sonko di njiital Sonko président moom nag ànd na ak ndaw ñi nu mu koy defee saa su ne bu demee ci gox waaye it mi ngi wax li nga xam ne bëgg na ko ngir rek def ko ci boobu gox waaye tamit wax na ci li nga xam ne fii ak fukki at bëgg na sukkali senegal ñu daal di déglu ay kàddoom ak Abdoulaye Dione ak Ali Diallo. nee na Matam est son titre foncier kay ku yàlla may nga dund ba am titre foncier lu mu tuuti tuuti di nga góorgóorlu tabax fa sa gànn barak boo ñëwee dem tëdd fa soo ko mënul tabax sa immeuble mais pendant sept ans inauguré fi dara et sur la de manipulation de sentiments bu nga gëmloo au Sénégal mais bëgg a utiliser les matamois pour vous faire croire que ici c'est son titre foncier est-ce que vous êtes d'accord les populations du Fouta le Fouta c'est une population digne c'est une population intègre et travailleuse c'est une population fière parce que le Fouta vous êtes les dignes héritiers de Thierno Souleymane Balo. quest dama bëgg à partir du Fouta ñu xam ni am nañu référence pour le Sénégal et pour le monde entier et cette référence est un Foutanké lañ ñuy andil di ko gëmloo ni loolu mooy le meilleur modèle moom il y a presque 242 ans maintenant il a conduit ici dans le Fouta la révolution Torodo révolution boobu amul modèle bu ko gën a mat qu'est-ce que Thierno Souleymane Ba naa leen fàttali les neuf grandes mesures de la révolution de Thierno Souleymane moo ne ni loolu suñ ko appliqué woon tey tey tey tey développer le Sénégal Thierno Souleymane Ba d'abord jàngal nañu le courage et nous les jeunes sénégalais nous devons être courageux parce que suñu buggee defar Sénégal il faut ñu courage courage boobu ñun li ñuy xeex pour libérer le Sénégal de la domination pour libérer le Sénégal de l'emprise des étrangers pour redonner à Sénégal son indépendance réelle et véritable même combat bi Thierno Souleymane Baal mëne na ko fii au Fouta bi nga xam ne naar yi dominé nañu Fouta di fi imposer seen impôt moom moo ñëw libérer le Fouta contre cet impôt colonial que les Maures avaient imposé donc c'est un modèle pour nous dans notre combat de PASTEF dans combat en tant que candidat et première référence bi ñu noonu candidat Benno Bokk Yaakaar di président Macky Sall moom nag daal di nay dalal xel nu ñu mu àndal moom nag bëgg na gagné élection yi ci premier tour daal di dem foofu nga xam ne mooy palais kàddu yooyu mi ngi ko yëkkati foofu ci Rufisque ginnaaw nag mi ngi fay amal ab meeting ñu daal di koy déglu Youssoupha Mine ak Sele Mbaye ñoo fa teewoon. mais mbir mi leer na nañ fépp fu ma jaar ci Sénégal le peuple est debout maa ngi wax seen xel dal ci suuf. ñu amoon suuf ci wàllu port minéralier de Bargny xam ngeen ne man duma président buy bàyyi ñuy noot askanam jamais le train express régional soixante milliards la ñu ci fay nit ñi impacté par le TER donc les cinq cent millions de Bargny seront payés d'ici la fin du mois de février pour les populations de Bargny ñi nga xam ni ñoo nekk ndayaan ak yeen na seen xel dal port bi du leen fa jëlee dinañ toog te képp ku war am dédommagement dinañ la ko jox ba mot sëkk. j'ai une politique sociale une politique au service du peuple sénégalais voilà la différence dañu dem stade wala bayal bu yaatoo di waaye yor sa ñetti oto taxaw di wax lu la neex. foog ne avec ça tu peux faire bouger les gens nañu dem ci stade yi la victoire au premier tour est inévitable et personne personne ne pourra l'empêcher kuréel gi ëmb daayira Tijaan bu ndakaaru ñoom nag tey daal ne amal ak bësub ñaan jëm ci élection présidentielle yi di woote jàmm ñoom nag li ñu bëgg mooy candidat yi daal di wax ak seen ay militant rek ak ñu daal di leen def ba benn jafe-jafe wala benn coow du am ci boobu élection ñu daal di déglu ki nga xam ne moo fa nekkoon ànd ak Doudou Diouf. L'événement qui nous réunit aujourd'hui c'est en rapport aux élections de 24 février Et l'objectif, c'est de lancer un appel au calme, à la et à la sérénité. Nous exhortons les populations, en commençant d'abord par nos enfants, que les élections, c'est séquence partielle dans la vie de la nation. Et depuis des siècles, le Sénégal vote. le Sénégal ne s'arrêtera pas le 24 février. Par conséquent, il faut qu'on y aille avec sérénité. Et comme l'a dit tout à l'heure le président, Dieu a déjà choisi son candidat. Donc, ce que nous demandons tout avec les prières et le recueillement, que la coordination Tidjane dans sa totalité, réunie ici au nombre de 110 daïres qui sont représentés uniquement par leur président et leur présidente. Nous avons fait le récital de Coran, nous avons fait des prières uniquement pour lancer un appel à la paix, comme l'a comme fait nos prédécesseurs, les foyers religieux partout dans le Sénégal. maître Madické Niang moom nag mi ngi woon foofu ca ndax géej foofu sax la ndax keppe li nga xam ne nag mooy ay activité am moom wax na nag li nga xam ne bëgg na ko def foofu ca ndax géej waaye nag ci boobu ndaje moom nag mi ngi wax li nga xam ne mooy état de droit jëm ci wàllum jàngale bi ñu daal di déglu ay kàddoom ak Bamba Diagne ak El Hadj Badiane mi ñu fa teewaloon. Aujourd'hui, le courage dont je vais être porteur, le jom dont je vais être porteur, le ngor dont je vais Saint-Louis a fait toujours de moi un vaillant combattant, mais un combattant pour la dignité, un combattant pour le développement du pays, mais un combattant pour l'intérêt du Sénégal. Saint-Louis, je lui rends un vibrant hommage et je m'engage ici solennellement demain à faire de sorte que Saint-Louis soit plus qu'elle était hier, c'est-à-dire la capitale de l'OAOF. Je le fais pour mon pays. Je suis prêt à donner tous les sacrifices nécessaires pour que ce pays tourne la page de Macky Sall, la page du déshonneur, la page de l'instrumentalisation de la justice, la page de la famine. Je veux qu'on tourne cette page. Je veux que le Sénégal soit le Sénégal d'hier. Je veux que le Sénégal soit celui, le pays qui était hier respecté, adulé par sa démocratie, adulé par sa stabilité, adulé par sa justice. Il a tout bafoué, il a tout foulé aux pieds. Je m'engage ici solennellement de faire que le Sénégal soit toujours une démocratie forte. Bangui. Eh, eh, eh, ma nett leen tuuti mooy tëgg mi mi neex na waaye ma dikke léegi taalibe la du daagu du jaayu day fett su tuuti rek loolu mooy wax ji jërë jëf dama bëgg jaale waa Gendar man Gendar ak sanc ba benn la ñëw naa seet si leen seeti bël bi seeti ñi nu toxal maa ngi leen di massawu te di leen wax ni fa yéene naa def sama kéemtulaay kàttan pour régler problème boobu amoon na benn projet bi nu retenir jamono président Ablaye Wade moo doon OMVS def fi benn port fluvio maritime port boobu dana tax dana téye géej gi doole géej gi ba géej gi dootul mën di déborder du ma wax loo xam ne nag techniciens yi ñoo ko war liggéey mais lu ma leen di wax di leen ko wax te di xool ñëpp mooy suma ma toogee jàmm sama premier projet boo xam danaa ko lijjanti mooy régler problème mu bal bi. tey ci suba lañ doon jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ndongo yi nekk ci daara ju kawe gi di Cheikh Anta Diop ñoom nag ñi ngi laajte programme mu candidat yi waaye it ñi ngi ñaawlu fitna yi nga xam ne mi ngi am ci université yi bu période électorale amee ñu daal di déglu seen ay kàddu ak Adja Ndiaye ak Yaay Awa Diawara. nous avons jugé nécessaire de faire de lancer un appel. le tout dans un esprit républicain, dans un esprit de patriote, dans un esprit également de jeunes Sénégalais engagés pour le développement de ce pays-là. De lancer un appel à l'ensemble des candidats à la présidentielle du 24 février 2019 pour qu'ils rencontrent les amicales ou bien l'amicale de la faculté de lettres et sciences humaines, de nous exposer leur programme concernant l'enseignement et de nous dire qu'est-ce qu'ils pensent de ce système-là et quel est leur projet une fois qu'il soit élu comme président de la République de ce pays-là. Ce que, ce, ce que nous attendons du futur président de ce pays-là, c'est qu'il sache que aucun pays ne peut se développer, aucun pays ne peut avancer sans que qu'il y ait un système éducatif normal, un système éducatif de qualité où l'enseignant, l'étudiant, ou bien l'élève autant pour moi, est mise dans des conditions adéquates, dans des conditions parfaites pour vraiment étudier, comprendre et pouvoir également revenir pour travailler et enfin de développer ce pays-là. Étant donné que c'est le maillon le plus important, si je peux m'exprimer ainsi, de notre pays. Et depuis des années, depuis très longtemps, surtout cette faculté-là a toujours eu des difficultés. Et je pense que nous, étudiants, il faut qu'on se regarde en face et qu'on se dise la vérité. Nous avons des surtout les étudiants de cette faculté-là. Rien de nous n'est sûr, rien de nous n'est certain. Nous savons très bien que nous avons des formations, souvent je ne peux pas entrer dans l'état, mais des formations classiques qui aujourd'hui ne répondent pas aux demandes qui se trouvent au niveau des marchés. Donc il faut qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils pensent de cette jeunesse-là, de ces 37 000 étudiants qui sont là dans cette faculté. fii ci Sénégal ñetti xale yoo jël kenn dina ci ñàkk bakkanam ndax ñàkk lekk gu baax waaye it jigéen ñi nga xam ne ñoo wan loo mënuñu ci benn yoon loolu tax kuréel gi nga xam ne nag mooy société civile tey jii daat nañu bëgg wax ak candidat yi ñu jël ci ay matukaay ba lu nu mel bañati fi am waaye coordonnateur bi nag bu plateforme bi di Seydou Ndiaye moom wax na nag ci micro suñu reporter bi ñu fa teewaloon. acteurs de la société civile, nous avons profité justement du contexte euh, préélectoral, euh, contexte pendant lequel le débat euh, public autour des politiques et des programmes de développement portés par les cinq candidats sont lancés dans notre pays. Nous avons estimé utile justement d'interpeller les, les, les, les cinq candidats à l'élection présidentielle pour d'abord, un, le, les rappeler leur rappeler les engagements nationaux et internationaux du Sénégal en matière de nutrition, que ce soit dans le cadre du mouvement SEN ou dans le cadre de l'Assemblée mondiale de la, de la santé, mais aussi les amener à, à, à nous faire des propositions concrètes en matière de, de, de stratégie, en matière d'efforts de, pour justement euh, venir à bout euh, du fléau de la malnutrition qui, ki qui, qui, qui existent dans notre pays sous ces, sous ces deux formes. laataa ñu yegg ak yéen ci xibaar yi ci gàttal démb nag jàmmaarloo dox na ci diggante waa benn Bokk Yaakaar ak waa coalition Idy 2019 foofu ci avenue Blaise Diagne ba tax nag ki nga xam ne mooy Abdoulaye Sow di responsable politique ca Kër Massar am ci ay gaañu gaañu waaye it am na oto yu bari yoo xam ne jot nañ fa yàqu ñu daal di seetaane image ci biir Dakaractu. <laughs> <laughs> wala lii waay. waa benn yaa ngi daw toj def naa ngeen toj passe à la Médina sans commentaire li jëmoon ci enquête bi amoon foofu ca Tambacounda doxoon diggante candidat bi di Issa Sall di parti de l'unité et de rassemblement ak ay ndaw yu benn bokk yaakaar taxoon ki nga xam ne mooy Ibou Diop ak Cheikh Touré ñàkk bakkanam altine fukki fan ak juróom ci weeru février am na nag ay nit yuñ ci jàpp ñaar fukk ak ñeent ci ñoom ñu féetee pur daal na leen taxawal ci kanamu procureur bu Tamba di Demba Traoré altine fukki fan ak juróom ñett ci weeru février jëm nag ci li nga xam ne dañoo faat ki nga xam ne mooy tailleur boobu di Ibou Touré ginnaaw seen jàkkaarloo ak procureur fukk ak juróom benn ci ñoom daal na leen di placer su mandat de dépôt waaye it am na ñoo xam ne jàpp na leen di dañoo faat ñeneen ñu jàpp leen ci ñoo xam ne dañoo dóor ba gaañ te tey ko ak it li nga xam ne mooy téye arme te ci benn autorisation fukk ñaar ci ñoom nag daal na leen di bàyyi ndax amuñu lenn loo xam ne ñu ngi leen koy toppee waaye ci boobu waxtu am na benn ndaw bu bokk ci benn bokk yaakaar boo xam ne jàpp nañ ko ginnaaw nag ñi nga xam ne ki nekk ci PUR am na koo xam ne dafa dawoon ba léegi nag ñi ngi koy seet waaye bi nga xam ne moo doon dawal boobu oto te mu amoon accident dina jàkkaarloog juge bi nag suba ci fanweeri fan ci weeru février foofu ci tribunal bu Tambacounda Pape bu soppi di président waa Wade naroon naa dem foofu ca Saint-Louis dëkku maam Kumba Bang waaye yëf yi nag mujjeewu la antu ginnaaw rek bu mu jógee foofu ca Guinée Conakry daal di seet ki nga xam ne mooy président bi ca beneen wàll ba pur moom ma ngay wéyal di def ay mbiram boobaak léegi talaata ji parti bu unité et de rassemblement dina dem fi nga xam ne mooy Diourbel ak Guinguinéo ak li ko wër jaajëfal bu baax ci teewlu bi jox leen dig daje suba bay ni leen ngeen di wéy ni suñu programme ci biir Dakaractu